maa ngi leen di fay maa leen di fay. alors tey nga xëy ñëw fi nga xam ne moom mooy fi nga war a voté lan mooy doon euh, première réaction bi quand euh, rendre d'abord grâce à Dieu sant yàlla bu baax bi ñu permettre ñu def une campagne électorale de trois semaines yàlla def ñu def ko ci jàmm même bu fekkee commencé woon na ak tuuti tolof tolof. Euh, di ñaan yàlla journée bi mu nekk une journée de vote paisible parce que pour ñun pour ñun c'est un jour où on célèbre la démocratie c'est un jour où le citoyen exerce un droit qui est en même temps un devoir pour que réew mi li nga xam ni bëgg nañu ko fi def incha allah def ko may wax nag à l'endroit de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises ñu génn voté ji parce que le 17 novembre marque un tournant historique dans l'histoire politique du Sénégal am na ñu bari nag élection présidentielle dañu ñaanoon yàlla jël xob bi nga xam ni photo Ousmane Sonko moo ci nekk pour dugal ko ci urne bi nañu jàpp ni loolu moom mooy am tey incha allah la ñu bëggoon tey am nañ ko nañu fexe ba ki nga xam ni il a tout donné à son pays il tout donné à sa patrie tey ñu célébré ko sagal ko jël photoom dugal ko ci urne bi ñu am majorité bi ñu soxla teg ko ci loxo président Bassirou Diomaye Faye donc euh, les réformes yi nga xam ne bëgg nañ ko incha allah ñu def ko ci réew mi. ndax amaguñ ko benn aperçu ci influence bi ñu xëy bi ñu xëy ak léegi. waaw li ma gis démb laa commencé gis parce que dama gis démb Dakar commencé vidéo te loolu gëj naa ko gis ci politique Sénégal élection législative dëkk bi mel nii euh, fête dafa am. les gens sont sortis de Dakar pour aller voter les Dakar waa aussi maa ngi leen di gis ñu ngi génn di voter ji et gëm naa ni incha allah euh, le taux de participation bi ñu nar a am euh, tey mooy ëpp yi nga xam ne daan nañ ko am ci élection législative li ci des nag may wax waa Ndakaaru neleen leen problème bi du ndam bi dañuy gagner incha allah mais ampleur ndam bi ampleur ndam bi moo ñu intéressé combien de voix aujourd'hui nous allons compter pour le département de Dakar yéen nag yéen doon wax may borom Dakar wane leen ko tey et je vous invite à venir danser le jazz tout à l'heure à 18h chez moi. merci kaddu yi nga xam ne moom mooy euh, voilà merci beaucoup kon mbokk yi loolu mooy euh, réaction ki nga xamante ne moom di euh, Abass di tête de liste euh, départementale bu Dakar bu Pastef kon kon ñu accompagner ko rek moom itam mu daal di dugg ngir def li nga xamante ne moom moo di son devoir wala bokk di itam un droit pour chaque citoyen fi nga xamante ne moom di fii si école Tatafa. kon fii lay daal di voté lii di sa première réaction laata muy voté moom Abass Fall comme ni ngeen ko gisee nun kon euh, fii ci biir centre bi euh, foofu lay daal di dugg kon waaye voilà kon ma ngi noonu mbokk yi moom voilà kon mbokk yi mu ngi noonu Abass Fall kon euh, ñu ngi fii ci li nga xam te moo di ci biir centre bi jëmal yi jëmal yi waaye fii amul gaaw fan gaaw xanaa damay buub nit ñi voilà kon dañuy accompagner rek moom Abass Fall mu dem accomplir li nga xamante ne moom moo di son devoir citoyen waaye itam euh, di droit moom mi nga xamante ne moom mooy moom mi nga xamante ne kon moom moo di euh, tête de liste départementale bu Pastef fii ci euh, dakaar ma ngi noonu kon mbokk yi ñoo ko gisandoo.

kon moom Abass Fall. Ah, kon moom Abass euh, kon fii ci centre euh, Tata Fa euh, lay daal di voté. Ah, fi nga xam moom moo di. Euh, fii euh, si West Foire kon moom Abass Fall comme ni ngeen ko gisee euh, jamono ji nag toute la presse est rentrée dedans pour accompagner ko moom itam suivre ko waaye itam dégtal leen ko en direct kon mu ngi noonu mbokk yi di ñu suivre en direct fii ci 313 digital kon moom Abass Fall di def li nga xam te ne la ñu moom Abass Fall nag euh, ba tey rek. gis ngeen noonu moom la ñuy xaar mu dugg mu ngi noonu taxaw ci li nga xam te ne moom moo di euh, ci euh, bunt bi euh, mu ngi noonu mbokk yi moom Abass Fall mu ngi noonu accompagné de sa délégation également waaye itam ànd ak ñi nga xam te ne moom moo di ses militants et sympathisants fii nga xamante ne moom moo di fii ci west Foire ci centre bu Tata kon mu ngi noonu moom euh, Abass Fall mu ngi noonu taxaw dégg ngeen sa première réaction laata muy daal di guddi li nga xam ne moom moo di euh, ci biir centre de vote bi kon mu ngi noonu mbokk yi euh, fii ñu fas yéene leen ko dégtal rek en direct ci seen chaîne préférée 300 voilà mu ngi noonu présenté li nga xam te ne moo di sa carte d'identité nekk itam sa carte électeur moom Abass Fall waa Sénat agent Sénat bi la koy daal di jox moom mooy njëkk a vérifier ba noppi. mu ngi noonu kon dañuy vérifier moom ba xam mu ngi ci li nga xam te moo di ci liste bi ba pare euh, après euh, ñu soog a euh, def li nga xam te moo di yeneen acte yi gis ngeen ko noonu mu ngi noonu kon di jël li nga xamante ne moom moo di bulletin yi ba léegi nag jëlagul benn mu ngi tëb rek di jàll jëlagul benn bulletin mu ngi noonu mbokk yi Abass Fall kon Euh, jël na benn euh, bulletin mu ngi noonu donc moom Abass Fall mu ngi noonu jël na bulletin Pastef également ba tey moom Abass Fall mu ngi continuer gis ngeen ko noonu ci image yi mu ngi choisir li nga xam te ne moo di euh, les bulletins ngir dem ci li nga xam ne moom moo di ci isoloir bi euh, ñu koy wax mbañ gàcce kon foofu la jëm voilà mu ngi noonu di ñëw ci isoloir bi la jëm kon moom Abass Fall voilà il voilà day dugg ci li nga xam ne moom ci isoloir bi si biir foofu lay euh, daal di voté nag foofu lay jëlee euh, bulletin bi nga xam te ne moom lay votel jël ko dugal ko ci li nga xam te ne moom di ci enveloppe bi. kon moo ngi noonu ci biir isoloir bi moom Abass Fall foofu nag kenn du fa filmer xam ngeen ne. voilà ba léegi mu ngi foofu ci biir moom nag. ngi si biir mbañ gàcce gi jamono ji ñuy xaar moo génn xam ngeen ne moom Abass Fall moom moo jiite li nga xam te moo di euh, tête de liste départementale bi Dakar euh, di euh, bërëb boo xamante ne bërëb bu ama am solo la ci représentativité ci li nga xam te ne moom moo di ci wàllum député fii ci euh, Dakar parce que lu mu dee dee département bi kese kese kese kese euh, war na am lu tolloog euh, sept députés sans pour autant compter les autres départements voilà mu ngi noonu kon moom Abass Fall di accomplir son acte citoyen mu ngi noonu di jël li nga xamante ne moom di mu ngi noonu voilà dugal na ko ci li nga xam te ne moom moo di ci kees bi kon instant bi li des mooy mu dem émerger ci li nga xam te ne moo di voilà kon Abass Fall mu ngi noonu instant bi dafay daal di soit départemental wala national dinañ si ñëw bu baax a baax des informations par rapport à la. d'accord ok. day taxaw nii. day taxaw nii xaaral. ni nga ko daajee nii nag. waaw d'accord d'accord moom mi ngi dem ko dëgg. taxaw xaaral. loolu jëmee woo ko. loolu jëmee woo ko. ak kër Seydina Mohamed loolu ni moom loolu ay wax la rek ay wax la rek ay wax la am euh,